alors asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant bon dama ne woon sax duma génn di wax dama ne woon du génn di tontu kenn waaye nag trop c'est trop te lu ëpp dafay tuuru man Papichou duma ma Camerounais du ma Ivoirien du ma Ghanéen laa te ci réew mi laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa tekkee kon du ma nangu benn imbécile wala benn defin wala benn nonsense wala ku xolam bon wala koo xamante ne nii baaxul santul yàlla téyinawul kenn jàmm di yàq sama der duma ko nangul kenn ndax dama am famille dama am yaay dama am papa dama am soxna dama am doom te duma nangu yaayu kenn wala papa yi kenn wala doomu kenn nekk ci jàmm sama askan di nekk ci ci ci lu leen neex naqari déedéet te réew mi defuma fi lu ñaaw. ngeen doon ay hypocrite nag. doon ay borom xol yu bon man yéen ñi taxaw di yàq sama der yëpp amul ku ci mës a taxaw ne Pape Chou mës sama manqué de respect ku ci ne cër laa la jox ku ci ne respect laa la jox mais ku ci bëgg buzz rek wala nga bëgg ku la tudd rek nga ne xaar ma tudd Pape Chou dafay arrêté ku ma ci dajal face to face amoo fi du xool ma ba may wax quoi que ce soit ndax man am naa fulla xam naa maay kan ci doomu réew mi laa bokk fii laa juddoo mais bu ngeen toogee ci télé bëgg ku leen tudd dem leen ngeen prouver dem leen ngeen liggéey dem leen amatoo leen temps amatoo leen débat seen débat yépp mu ngeen focus ko ci man man doomu jàmbur laa sama yaay dafa liggéey de man du ma ragal fi ma jëm dama koo ñime te dama fay yegg par la force man bu ma coow li dafay bari ndax nit ku sell laa nit ku baax laa nit ku bari jom laa dama am doom am ay doom am jabar duma ma nangu benn doomaraam di yàq sama der yéen ñiy taxaw di yàq sama der yëpp maa leen gën xam nga ma leen gënee aw ma seen jot xam nga lu ma leen gënee li ñun di képp ku taxaw pour yàq sama der dootuma ko ci mayeti benn doomaraam amatoo leen sax pour taxaw di jël sama photo di ko taf ci internet bi du wax du n'importe quoi ku ko ci defati yow ak dikk yéen ay am problème te boo ñëwul dinañ la jël si nangootuma ko parce que gënu leen man day gënu leen ma bàyyi ku ma ci gënul gënoo man ku ma ci yàq rek sama dàll bii sax moo la gën ndax sama yaay du caga du gwin du lesbienne génnul guddi sama baay du naankatu leen tax a jëfur artiste bu ci fay artiste bu kenn waneetul artiste bu ñu waxatul say wax doomu biiral bu ñu tudd nga ne xaar ma jóg boo bëggee fii nga tax sama foto boo bëggee ñu tudd la nga ne xaar ma dem ci Papichou déedéet arrêté leen day day dàkk sama photo képp ku ci tafati ma taf sa lëfal nday sama foto ku ci ku ci ku ci yàlla na ba ma yeewu suba teel ba gis sama photo nga taf ko ci sa Instagram wala nga taf ko ci sa TikTok wax ko ci émission confrontation boo xamante ne ni on était six personnes ngeen ciblé ci benn doomu dama ciy sant yàlla bu baax ndax nag ku jiitu dégg sa ndong lu duuf li waaye nag dafa am yoo xam ne du ko nangul kenn am na yenn baat yu ñaaw yoo xamante ne nii du nangu mu may topp di toppaale samay njaboot duma ko def kenn déggul sama gémmiñ ma neen góor day nooy déedéet taasu laa wax Sénégal boo xamante ne nii kenn du avancé kenn du liggéey kenn du am valeur kenn du bari jom kenn du jéem a xool la avancé loo ci sa àdduna nga koy def mais bu ngeen avancé wul wala ngeen tardé dem ngeen laaj seen yaay loolu lañ liggéey seen kër baay ba ngeen retard man sama yaay bi jeg ji tëdd di nelaw mu nga woon di liggéey moo tax man kàll damay damu par la force bu ngeen ko xamee noonu nag da ngeen noppal waaye bu ngeen ko xamul maa ngi yéen ci réew day metti te yàgg mënumaa juddoo kasee na juddoo kaseenu Samba Diéry Diallo màggee xaar yàlla yaroo ginnaaw raay di ragal mënumaa ragal sama kanam gi ragal nekku ci duma koy arrière duma koy xof duma koy tiit mënoo leen leen maa xatal ci dëkk bi mënoo leen maa lëjal ci dëkk bi te ku ma ci jàkkaarloo face to face dangay arrière barki Serigne Babacar arrêté leen man a yéen du combat man a yéen du match maa ngi yéen nag c'est la guerre commencé na bu ngeen bàyyiwul du ma bàyyi te képp ku jëlit sama photo ko sa ginnaaw di ci wax du n'importe quoi doo sa kër te waaye nag dama leen di comprendre yéen ñooñ toog def coalition ànd xeex Papichou seen xol du mën a neex ndax boo defee ci aar ñaar fukki at ak lu teg te mënoo prouver dara boo defee ci aar fukki at ak lu te kenn déggu la boo defee ci aar loo xamante ne nii durée bu yàgg la te mosoo cee def benn lu xale TikTok sa xol day dagg boo gisee xale yi am jom xale yi bari valeur xale yi di sol ci designer di dawal ci Range ford yi di taq ci or yi di sol di takk ci oor di di ci jesneer bi soxol du mën a neex dem leen ngeen prouver te bàyyi plateau tele bu ngeen toog nekkee fa sama der bi bu ngeen jógee di ma siñ bañ bu wax te man ngeen di bañ a gis comme que man nag je dérange je vais je